kenn sa notes yu Dakar Net ginnaaw bi ñu leen yoo xibaar ba daanu na xibaar bi nga xamante ni sénégalais yu baree bari bu ñu ko déggee dinañ ci bég lool du lenn lu dul ñetti fanu grève yi nga xamante ni sénégalais yi dem beeg dikk bi daal dinay tagga tembe ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko créé woon maanaam ñi tegoon mouvement de grève boobu di transporteurs yi ñoom daal dinañ koy teg ci suuf maanaam arrêté nañ grève bi li tax ma wax ko ginnaaw bi ñu doon janook Mansour Faye mi yor wàllu transport ak hygiène publique bi nga xamante ni Abdoulaye Sow moom moo ko dirigé woon ak nga xamante ni mooy Omar Gueye wàll wàllu yor wàllu collectivité territoriale ak ki nga xamante ni moo jiite wàllu HTC bi di innocent euh, innocence Tap Ndiaye ginnaaw ay waxtaan yi ñu doon entamé si ngoon ba léegi daal dinañ trouver benn protocole d'accord maanaam d'accord nañ ci ni dañuy tegandi ci suuf li nga xamante ni moom mooy grève yi di lu sénégalais yu baree bare di rafetlu waaye nag ñoom transporteurs yi nee nañ euh, dañu ko tegandi rek ci suuf bu ñu demee ba ci kanam gisuñu lu leen doy dañu koy yëkkatiwaat wéy